asalaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di ra di ñaan réew mi yàlla na fi jàmm am suñu sëriñ bi fi jógee xalif général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké kooku moom sama soppee bopp la man nee naa ñëpp mën nañ ko sopp mais man maa soppal sama bopp maa ko bëggal sama bopp sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg lool lool lool lool lool ak njaboot gi yëpp ak mboolem xalif yi fi nekk hmm. alors tey ñu ngi dalal euh, Gora Ndoye président des amateurs Gora Ndoye maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi seetaan waaw Pape magget maa ngi lay fay vraiment di am contentement bu baax a baax di la féliciter di la encourager aussi tamit ci sa liggéey bu rafet di nuy internet yi ñuy seetaan yëpp à travers Sénégal vraiment di site bu mag di nuyu ñëpp di nuyu amateurs yi particulièrement les jeunes amateurs di nuyu aussi tamit diaspora bi di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp hmm. diaspora boobu dama leen di nuyu. Hmm. mais premièrement waa waa waa Argentine maa ngi leen nuyu sànq maa ngi wax ak ñoom ku ci mel ni ki Lamine. Euh, moom euh, kilifa la si sénégalais yi nekk foofu diaspora bi euh, maa ngi koy ziar bu baax baax ak sama ñaari xarit yoo xam ñetti xarit yoo xam ne du leen fàtte mukk ay mbër lañu woon <laughs> saa kajoor maa ngi lay nuyu moo ami mon frère mhm. Mhm. moom léegi day vaye vie instant ni ngi Belgique léegi dafa am xaalis saa kajoor moo ami moo frère Euh, Jaguar. bi nekk États-Unis yàlla ko yàlla dimbali. amin amin waay. ba jafe-jafe yi mu nekk jafe-jafe yi mu nekk mu génn ci waaw Jaguar. Ah, ndeysaan xaritam Mouhamed. Mouhamed waaw kooku di ko taxaw bu baax. Mouhamed ndeysaan nit ku baax. Ah, nit ku baax ndeysaan nit ku baax ñu ngi déggante. Euh, di nuyu tamit keneen ki sama xarit. sànq rek ñuy waxtaan. cartouche mm-hmm. cartouche waaw borom France borom Marseille ndeysaan ndeysaan man ak moom ñoo bokk suñu Marseille ñoom vraiment diaspora bi ñu ngi liggéey lu am solo ci làmb vraiment foofu laay jaaree ma ni di nuyu suma frère Cheikh bu Waalo Cheikh bu Waalo waaw moom it grand mm. champion mm. ay ñoom Toldo ñoom Toumani vraiment ñoom Dev Live ñoom ñëpp ñu ngi diaspora bi mm. ñoom vraiment ki nga xam mooy Omar Ngala nekk un Pikinois nit ku baax ñooñu ñëpp ñu ngi diaspora bi ay vraiment ay sénégalais yu nekk foofu di daan seen doole mais nag di làmb aussi mm. tamit ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ak sénégalais yi ñuy seetaan yëpp alors tey ñu ngi war a waxtaane ci wàllu làmb yenn jafe-jafe yi nga xamante ne am na ñu ko ciy dund mm. muy mbër wala promoteur wala amateur bi ci mujj mooy combat Ibrahima Diop ñu koy nuyu au passage di ko encouragé ndax li expérience la jàng la rek chaque jour moom da ngay jàng àdduna demee noonu ak foo mën a nekk euh, combat am yàqu diggante Mama Lamine ak Garga 2 ñu koy masaw Assane di seexam boobu nga xamante nii moo jëf jooju nga xamante nii xëy na ndogal la moom itamit euh, yàlla na ko yàlla dimbali mm. delloowaat ko sagoom parce am na yoo xam ne moom boo ko defee rek xëy na di nga ñàkk sago si saa si mm-hmm. mais yàlla ko yàlla dimbali ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di masaw bu baax a baax a baax mm-hmm. euh, tey ñu njëkkee ci komba boobu mm-hmm. Garga 2 Mama Lamine ñu dem ba ci bés bi mbër bi mënul ñëw ndax li xew ndog boobu nga xamal ni sóoraale wuñu ko ci li jëm ci wàllu règlement ba promoteur bi am ci jafe-jafe góoral lan moo ci sa sa jàngat ci côté boobu ak sa proposition lan lay doon waaw Pape Maguette vraiment muy lu doy waar ndax it euh, comme ni nga ko waxee rek mbiru suñu borom moo ñëw muy ndogal te ndogal moom du wees hmm. foofu la ñuy jaaree rek di nuyu suñu frère Mama Lamine comme ni nga waxee hmm. ndax seexam mën nañu wax ni moom la ndogal gi dal ci kaw hmm. te ku ne xam na diggante seex ak doo seexam ku nekk ni nga mel si sa seex daanaka mën nañu wax sa genn wàll la kon tey bu ko ndogal dalee rek mel na ni Mama Lamine la dal Mama Lamine nag nekk jeune lutteur boo xam nit ku am fulla la nit ku am fayda kenn musu ko gis mu yàq làmb kon li ko dal dañ koy massaw xam ni ndogalu suñu borom la yàlla moo ne woon noonu lay demee mm. di ko massaw a baax parce que li ko dal na mm. di massaw seexam aussi ndax ñëpp bëgguñu woon loolu ndax mm. ki ko def ak ko def yëpp ñoom ñëpp ci bokk ñoom ñëpp Mama Lamine moo leen taxoon jóg ak combat bi yàlla moo ne woon ndogal bi noonu lay demee di massaw aussi le promoteur muy Ibrahima Diop Kajoor production nekk aussi tamit nit ku baax nekk un jeune boo xamante ni ku ambitieux nit ku bëgg réewam nekk jeune yor alalam mënoon ko def si leneen mu ñëw dugal ko ci làmb vraiment monté journée bu mag boo xam ne amateur yëpp ñu ngi ko doon xaar mais bi ñëwee balaa veille yàlla suñu borom ñëw ak ndogalam vraiment mais bi mu ko dalee aussi mu nekk ku gëm yàlla mais foofu aussi tamit lenn rek lañ ciy ñaawlu ba màgget mooy li nga xamante ni mooy taxawaayu CNG bi parce que un CNG yaakaar naa bi CNG bi fi nekkoon muy le président Alioune Sarr ñu koy nuyu de passage jaar na fi def ci làmb lu ne mais problème bu mu saan a taxaw compliqué day ñëw taxaw jël ay ba pare encadré ki nga xamante ni tey jii mooy la promoteur. parce que tey promoteur yi il faut tey jii nii CNG bi di leen mën di jàppale. vraiment parce que amuñu benn garanti tey boo xoolee diggante Mama Lamine ak ki nga xam mooy Garga 2 li ci xew mais ñëpp gis nañ ko mais tey le promoteur dafa jël mbër yi fay leen ay millions. pour tey ak ci dara. te daf ay loxo jël ci ay ci ay loxo parce que combat bi waa ñi nga xam ne waa Equivox ñoo ko njëkkoon a tëgg. mu yàqu ci seen mm. mu bañ combat bi ndax saay parce que xam na ni demande sociale la. amateurs yi ñu ngi koy xaar. Mm. ñoom ñaar aussi ku ci nekk war a bëreeg sa morom pour mën a xam sa yoon fan ngay jaar mais bu ñëwee pour sauver lamb ji jël lamb ji ak coono yi mu ci daj fay frais d'organisation fay publicité def lépp promotion combat yëpp mu def ko ba la veille ñu ne suba la combat bi ndogalu suñu borom ñëw mais compréhension war mën a am mais bu ñu jël règlement rek appliqué ko wax Garga ni ko ñëwal ci làmb ji mu ñëw ci làmb ji tous tous boo xamante ni yow gisoo ki ngay bëreel ñëw ci làmb ji sottee ko say gàllaaj dugg si géer bi yëkkati sa loxo loolu ñun dañ ñu def ñu décevoir parce que tey yaakaar naa la CNG bu ñu leen fi tegee dañ leen fi teg pour ñu jëmale lamb ci kanam. ban solution moo waroon am si jour boobu noonu. parce que sóoraale wuñ ko ci règlement. Mm-hmm. waaye tamit affaire u àdduna la parce que mën na am. Mm-hmm. comme li nga wax seex moom daa mel ni ki sa genn wàll yaram la. Mm-hmm. loolu moom su seex kenn bindu ko ci réglement papa yaay lañ wax wala yow mii di mbër mi. mais tey loolu ban ndogal lañ ci mënoon jël ci côté CNG pour régler loolu. mais foofu man dama jàpp ne CNG bi war nañ ko mënoon a waxtaanee ak promoteur mm. parce que yaakaar naa le moo yàqu. te grand combat bi comme yàqu na réglement ñoom li leen may mooy mbër mi dafa war a ñëw remplir contrat am mais compréhension war na mën a am parce que entre mbër yi ak promoteurs yi il faut CNG bi di ci dox muy gën a retax parce que tey jii nii ki nga xamante ne mooy Ibrahima Diop dafa ñëw indi ay millions mënoon na ko def feneen mais bu ndogal ñëwee moom mu gëm ndogal ne tey li dal Mama Lamine bu doon moom la dal du bëre. parce mais mais benn instant nag bi mu ko yëgee xel mi daa demoon maa ngi fa woon. ma ngay mas saw Ibrahima moom xel mi dafa demoon carrément parce que dafa metti parce que tamit ku xam làmb ni mu méttee mm. mm. programme lamb ak mm. combat ni mu méttee taxawal nga taxawal ko nekk ci programme bi nekk la nelawatoo lekkatoo yaa ngi ci télévision yaa ngi ci rajo yi di def promotion bi ba le jour ji vraiment am na loo xam bu dalee sa kaw rek daf lay gagné peut-être looloo tax xëy na mu réagir ni mu réagir mais Ibrahima nit la te ku ko xam xam ni vraiment alalam du ko boole ak keneen ndax gis nañ vraiment bi mu ñëwee ci làmb ak léegi yàggul mais mu ngi jàppale tey jii ñu bari ci biir làmb man xam naa ci dara kon tey lu mel noonu bu ko dalee li ñu waroon def mooy ñaari ménager yi ñu waxtaan seen biir mm. fexe nu ñu téye mbër yi ba la beneen jour beneen jour boo xamante ne tey jii dina doon jour bu baax ñu joxaat ko ko ñaari bëri ñëw même bu dee da leen di dédommagé mu dolli leen xaalis ñu ñu mën a continuer journée boobu mm. mais tey jii boo xoolee journée boobu yàqu na c'est parce que benn mbër bi ñëw na remplir contrat am mm. ñun amateurs yi parce que ku xool journée boobu xam ni journée bu waroon fees dell la kon jox nañ koy victoire te loolu noonu du lu gën bu ñu waroon a bëriwaat tey jii dañ leen di fay te loolu jàpp naa ni doxalu làmb parce que benn promoteur tëggul combat pour que maanaam tey jii nii benn mbër bi ñëw beneen mbër bi ba ñuy ñëw ñu yëkkati loxo kenn ñun amateurs yi gënaluñu jour boobu ñun ñëpp dañu am tey jii lu ñu metti parce que yéene ko promoteur bi mm. CNG bi aussi tamit yéene leen tey jii ñuy def yenn erreurs yi nañu xoolaat seen taxawaay xoolaat ne làmb ñoom dañ ko am fu ñu ko fekk ñu am fu ñu ko war a yóbbu mm. te fi ñu ko war a yóbbu il faut ñuy waxtaan ak nit ñi nañu xool ñi nga xam ne dañu bëgg doxal làmb ñu ñu jàppale leen ku ci mel ni suñu président Babou muy le président des ménagers def ci làmb lu ne def plus de 60 ans de carrière ci làmb tey jii bu fekkee mbërëm moom moo am problème bii mu am ni muy Garga 2 ci li ma yaakaar li mu waroon def mooy taxaw jël ay responsabilités xamal mbër bi ne ko promoteur bi il faut tey jii ñu encadré ko yaa may dégg couvrir ko ba événement bañ a yàqu mais warul dem di jël mbër bi di ko indi pour mbër bi ñëw remplir comptable donte moo nekk ci dëgg mais compréhension day am parce que règlement ay nit foo xam ne il faut ñu dawal compréhension parce que la vie continue promoteur bi mu ngi ngi fi à tout moment ku ci nekk da ngay soxla sa morom. kon nañuy xool li nga xamante ne mooy liy jëmale làmb kanam. Mm. ak li rafet ñu di ko doxal. Mm. Ah. ok léegi léegi bu ñu jógee ci loolu loolu mën nañ ko def pour gën a mën a. Euh, sove promoteur bi. Mm-hmm. mais dalul rek Ibrahima. Mm-hmm. am na combat boo xam ne am na fi. Mm-hmm. war a am ñu jàpp date mbër bi blessé muy yeneen ak yeneen mbër yu bëri di blessé. ba mu ci mujj Modou Lo Ama Baldé quelque semaine semaines. du combat Modou Lo blessé. combat bi mi ngi noonu. combat boo xam ne yàgg nañ ko coow ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañuy xaar ba ci veille wala ba ci jour yi si suba ñu ne mbër bi dafa blessé. loolu tamit euh, nan la ñu war a def ci situation boobu. pour protéger le promoteur. waaw loolu yaakaar naa ni du c'est la première fois parce que mooy li may wax rek day dal mbër parce que gis nañ combat jamaïcain bi mu monté woon diggante Gora Sock ak Fils de Balla bi ñu demee bañ ne combat bi des na une semaine ci lañ ne Gora Sock dafa blessé mënatul bëri ba il paraît que ki nga xam ne mooy Kaw Gourdin moom la mujj jël ak Ronaldinho def ko grand combat combat à une semaine mënoo am beneen combat boo ko remplacé léegi promoteur bi moom lan moo koy couvrir lan mooy nekk digganteem tey ak mbër mi ba nga xamante ni lan mooy garanti promoteur bi te promoteur bu jël ay millions am ñëw investir ko xamoo dafa leb banque xamoo nu mu def ba indi alalam kooku war na am lu ko garantie comme mbër bi lay dal ñuy dawal compréhension mais bu dalee promoteur bi aussi foofu la ñu war a xoolee xool ne promoteur bi aussi nit la comme mbër bi mm. tey boo xoolee tey diggante ki nga xam ne mooy bébé euh, nu mu tudd fils de balle ak góor a soog seen combat ba léegi mu ngi ci loxo promoteur bi te pourtant journée boobu ñoom ci la ñu waroon bëre boo xoolee diggante Ama Baldé ak Modou Lo ba léegi combat boobu mu ngi ci loxo promoteur bi amateur yi déception bi ñu am mooy jàppoon nañ ne dinañ bëre ren mais boo xoolee saison bi mu ngi ci mu ngi ci njeextal bi te ba léegi jàppaguñu combat bi kon combat boobu kañ lay am gis nañ nañ nee nañ Modou Lo reprendre na ay entraînement mais ba léegi indiwul certificat de guérison buy wane ni mën na bëre promoteur bi tey jii ki nga xam ne mooy CNG bi libéré na Ama Baldé bu gisee beneen combat mu bëri mais tey promoteur bi ci def xaalisam léegi moom lan lay def day toog di xaar xamuñu xaalis bi fan la ko jëlee boo xoolee tey diggante ki nga xamante ni tey jii nii mooy euh, mooy mooy Mor Diouf ñoom waa jàmbaar comme ni ma la ko waxee gis nga tey gii nii combat bi ñu jël muy diggante Siteu Papa Sow gis nga li ci am maanaam làmb bu ñu ko bëggee defar il faut ñi ko yor ñuy xoolaat règlement yi parce que règlement ay nit ñoo koy defar def nañ fi séminaire boo xamante ni bëri na règlement indi mais ba léegi appliqué ko ñun amateurs yi boobu ba léegi ñu ngi ñu ngi réclamer VAR ci biir stade bi boo xoolee écran géant bi ne ci biir stade bi lan moo tey ñu di ko taal bu combat amee litige loolu dina wàññi tey ñuy damm chaise xool bu ñu gisee victoire bi jox mbër bi victoire am loolu dina wàññi tey yenn violence yi nga xam ne ñu ngi gis ci biir lamb ñëpp gisandoo ko mu leer balaa ngay génn si stade bi mais da ngay gis mbër bi sax day dem si plateau télé wala mu ñëw si si ñun si caméra yi pour ñu wanaan ko image léegi mbër boobu day obligé jël vingt cinq mille francs te bu dugalee recours bu victoire bi génnee ñu jox ko duñ ko delloo vingt cinq mille am te loolu VAR da ko gën a gaaw il faut ñu utiliser VAR dimbali amateur yi dimbali promoteur bi dimbali aussi tamit supporters yi ñëw di ànd ak seen ay mbër. Hmm. ok léegi ci ci lool noonu dina bëri sax ay fitna yoo xamante nii dina ko jur. Hmm. muy combat yooyu nga xam dafay am ay litige te war a defar waat li nga wax c'est très important mooy euh, écran géant boobu ñu ko taal mm-hmm. nekk ci biir loolu mm-hmm. mën nañ ko fa sóoraale mën ah. mm-hmm. euh, nga xam ne mu ngi ci biir stade bi war nañ ko mën di utiliser di identifier ñiy ñëw di damu seeti li leen jàpp di leen teg yoon vraiment loolu aussi ñu ngi koy demander mm. di demander aussi tamit vraiment boo xoolee exemple ku mel ni Bamba Mbow mm. vraiment muy suñu frère créer benn association boo xamante ni tey mu ngi jël mbër yi nga xamante ni amuñu combat ak mbër yi nga xam ne gën nañ bëre mm. di leen defal formation garde rapproché mm. mais ñaata lutteur la formé ba jox nañ leen seen ay diplôme gis nañ ko tout récemment ci drapeau chef de l'état bi bi ñu leen di jox seen i diplôme mais ñooñu am na ci ñoo xam ne amaguñu liggéey mais nañ leen recruter indi ci biir làmb ji ñu dugg ci biir mbër yi dugg ci biir supporters yi mais di def doon ay stagiaires di jàppale tey jii nii sécurité bi nga xamante ni tey moo ne ci biir làmb ji loolu dina gën a wàññi tey yenn ñaawteef yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci biir xale yi ak yenn violence yi nga xam ne dina ko wàññi mais tamit gis nañu ci biir euh, stade bi mm-hmm. euh, ci biti am na mm-hmm. benn euh, parc bu bu yaatu mm-hmm. bu ñu doon aménager ñu déggoon ne dañ koy def poste de police wala gendarmerie pour ñu gën a mën a sécuriser stade bi mhm. liggéey boobu fu mu dafa mel ni ki liggéey bi dafa tàggatémbe de daa taxaw de mhm. waaw Pape Maguette liggéey bi gisoon nañ jamono lay passé vraiment tracteurs yi ñu ngi mhm. foofu ñun suñu dëkkuwaay la chaque jour dañ fay jaar mais gis nañ dans euh, mën naa wax ni quelques moments ngi nii liggéey bi dafa taxaw te loolu li ko waral ñun xamuñu ko parce que yaakaar naa bi ñu ministre ministre te boo xoolee bayaal boobu noonu vraiment ñun demandé nañu tey ji def benn poste de gendarmerie wala benn poste de police bu mën a accompagner tey ji nii sécurité bi nekk ci biir stade ak alentour stade bi est-ce que waaw non xam naa nag dese nañu leer parce que gis nañ travaux yi ñu ngi koy def ay terrassement mais exact gisaguñu première pose première pierre bi mais promettre nañ ne foofu dina am poste de gendarmerie peut-être nag comme mu ngi nekk en peut-être dañuy nekk di xaar mais jàpp nañ ne loolu a mm. a def tamit loolu lañ fay def tamit war nañ ko fa def parce que loolu day gën a yokk amateurs yi yokk sécurité stade bi ak alentour stade parce que bul fàtte ne stade bi dañ ko def ci biir gox boo xamante ni ay nit a fa dëkk. Mm. te moment bi ñu ko fay def am na ñu jógoon pour ñu bañ ko fa def ñu yóbbu ko jam ñaajo mm. kon bu ñu xeexee ñun waa làmb ba ñu jox ñu stade bi war na am lu ko accompagner muy sécurité. làmb nag gis nañ moment bi sécurité bi euh, li nga xamante ni mooy violence bi wàññeeku na wax dëgg ne yàlla parce que ñun chaque jour ñu ngi ci ah, làmb gis nañ ne wàññeeku na te loolu aussi tamit dañ ciy santaat yàlla bu baax di ci sant aussi tamit sécurité mm. tamit li fi xew ñuy gën a lancé waat rek ñuy gën a jëlaat ndaw ñi gën leen a gën leen a gën leen a encadré waat. ak commandant Thiour mi ngi ciy def liggéey bu am. commandant aussi vraiment ñu ngi koy félicité vraiment mu ngi gis nañ taxawaay bi mu am. vraiment ak sécurité bi. mag non mu ngi def lu am solo. vraiment di remercier aussi commandant Dramé aussi tamit. gis nañ aussi taxawaayam vraiment ci lamb yi bu amee. Mm. sécurité bi nga xam ni ñu koy jël. te yaakaar naa ni loolu tamit CNG bi il faut ñu accompagner leen si mooy di fexe lamb yi di teel a jeex parce que lamb yi bu teelee jeex rek sécurité bi dina gën a mën a mën a di gars yi dañuy mën a veiller ci sécurité bi que lamb yi guddee parce que lamb ji bu ngeen xoolee stade bi fu mu nekk dafa ginnaawee mm. mais bu lamb yi teelee jeex rek combat yi teel a jeex rek sécurité bi mën na mën na mën a yomb léegi ci côté euh, sécurité boobu noonu mm-hmm. ak tamit euh, violence bi nga xam jotoon nañ ko ne te luñ ci lu ci ëpp mm-hmm. ay ndaw la ñuy gis ne ñoo koy def mm-hmm. mais lu ci bëri tamit ñiy def violence yooyu ñu ci bëri duñu dugg ci biir stade si biir stade daal violence yi ñu fa gis xamadi la mooy dammi chaise sànnante gàllaaj ak nangam sàngam yooyu moom mbirum xamadi la ñu nekk ci kaw tribune di dammi ay loolu xamadi la mais si biir amul insécurité moom wax dëgg yàlla insécurité si biir la am ñuy agressé te ñi koy def ñu ci bëri duñ dugg ci biir làmb ji léegi ban solution ngeen ngeen ngeen ngeen teg wala boog yenn stratégie ngeen di teg pour gën a mën a sensibiliser nit ñi ci wàllu euh, violence violence non foofu moom euh, Pape Maguette li ñu fa li ñu fa am comme idée mm-hmm. mooy que ni gis nga arène nationale ñaari porte la benn porte bi moo jógee ci EDK bi beneen port bi moo jógee ci tribunal bi man dama jàpp ne tey làmb ak lamb bu mënti doon muy lamb ju mag muy lamb ju ndaw porte bi nga xamante ni moo nekk ci tali bu xonq bi fi rond point bi premier rond point bi foofu képp koo xamante ni war nga tëgg war nga fa teg sécurité boo xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi traversé di jaar ci arène bi di dox ak tànk waxuma na nga yor oto di traversé war nga wane sa billet buy wane ni ci lamb ji nga jëm boo dee journaliste nga wane sa carte boo dee ku nekk promoteur nga wane sa licence buy wane ni yow ci lamb ji jëm ñu bàyyi la nga dugg bu ñu ko defoon tey jii ci porte bi nga xamante ni mooy rond point bi nekk ci tali bu xonq bi def ko ci beneen rond point bi nekk ci armée li yaakaar naa ni comme li ngay ko seetlu muy en face stade bi ñi fay toog di def di indi violence parce que ñooñu làmb taxu leen a jóg. boo leen xoolee sax da ngay xam ne ñuy làmb taxu naa ko wan jour wan naa ko commissaire Dramé làmb ji nga xamante ni yaakaar naa boole woon na diggante Tapha Tine ak ki nga xamante ni mooy Boy Niang mooy ñoo ñu di toog ci buntu stade bi en face stade bi ci oto yi yàqu yi fees foofu dell ñooñu ñooy xaar lamb tas rek ñu créé violence ñoom ñooy def ful bi génn di def lu leen neex. dañuy gis am na ci ñoo xam dañuy tux. dañuy gis dañuy gis dañuy tux ñooñu nag ñoo ñooy créé tey jii nii problème yi am ci biir lamb wan naa ko commissaire bi ñaari yoon ñaari dimanche mm. gis naa benn dimanche boo xamante ni bi ñu demee ba ñuy waaj a siffler grand combat bi dañu taal foofu leen ñu dem mm. mais loolu pour man am na lu ko gën a simple hmm. mooy tere leen ñu yegg si sax ñu am accès sax ci buntu stade bi mooy bu ñu mënul wane seen biir bu ñu traversé ñu yem fële parce que tant ñu ngi toog en face stade bi rek dañuy bokk ci ambiance stade bi di dund ambiance bi bu làmb ji tasee ñu ànd ak nit ñi di def mm. violence mm. loolu aussi moom loolu laa ci am comme tey jii comme comme exemple ne bu ñu ko defee mm. war na mën a tax tey jii nii ñoom du ñu am accès ci buntu stade bi parce que stade bi il faut tey jii ñu am lu ko accompagner maa ngi lay wax sànq ci combat yi ak yi boo xoolee suñu frère Mo Gates Events combat journée bi passé nii bi mu mujjee tëgg quatre combats ñoo ci yàqu te la ñuy def ak il faut mu jàppaat beneen date te ku ne xam na ni date ren dafa manqué. date ren amul. Mm. mais un promoteur bu nekk en Europe wala bu nekk Amérique jël ay millions am de investir ko ci lamb jàppale jeunesse bi war na am lu ko couvrir. Mm. war na am garantie. Mm. ba nga xamante ni tey ni ñuy garantie tey mbër yi ba boo blessé boo indee certificat médical ñu xam ni da nga blessé jàppaat laat la beneen date promoteur aussi bu ko ndogal dalee ñu accompagner ko jàppale parce que lamb moment bii manqué na ay promoteur suñu père garçon lañ fi gis comme promoteur bu mag. gis fi waa jàmbaar ñi nga xamante ni ñoo indi combat Siteu Papa Sow ak Pape Abdou Fall bu ñu dee dolliwaat beneen promoteur moo gét ngay wax yeneen promoteurs yi ci des yëpp mën naa wax yenn combat yi mu yabi tëgg kon tamit ñooñu nañ leen accompagner jàppale leen bu seen journée naree yàqu ñu accompagner leen jàppale leen pour ñu mën a amaat courage ñëwaat indiwaat seen i xaalis pour jàppale waat la am alors fi ñu fi ñuy jeexalee mooy euh, ci wàllu sensibilisation ci wàllu jàmm. Mm-hmm. Euh, gën a sax ci làmb. Mm-hmm. man dama naan jàmm am na ci mais dafa am ñenn ñu ci rax rek. ñoo mm-hmm. ñooy ñooy yàq. mais ku mel ni yow ak keneen ak kereen bu ñu am bu ñëpp meloon noonu rek làmb ji jàmm jàmm jàmm lay nekk surtout tamit ak ñin wër mbër yi. loolu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. mbër yi gën a defar seen seen seen entourage. loolu lu am importance parce que ci la ñu bokk. tey yan jéego ngeen def wala yan programme yoo xam ne yéen a ngi ci. pour gën a mën a sensibiliser la jeunesse mm-hmm. euh, ci non violence gën a sax euh, ci làmb ji mm-hmm. waaw moment bi toll nii vraiment idée yi ñu am pour gën a sensibiliser nit ñi ci non violence bi mm. bokk na ci li nga xamante ne mooy séminaire bi nga xamante ne ñoo ngi kiy waxtaan ak suñu sœur muy Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse parce que làmb kenn mënu ko wax te doo wax jeunesse mm. muy ministre de la jeunesse muy ministre des sports muy ministre bi nga xamante ne tey jii mooy ministre euh, bi yor wàll mën naa wax ni tey lépp loo xamante ni jëm na ci làmb mi parce que lamb dafa am ñetti ñu ko ñu ko composé ministre de la culture ministre de la jeunesse ministre des sports ministre de l'intérieur ñoom ñooñu ñëpp tey jii nii kenn mënul dugal sa kenn mënul génne sa loxo ci lamb parce que seen njaboot ñooy daje ci lamb mm-hmm. am na loo xam ne ñoo koy waajal ak Néné Fatoumata Tall muy ministre de la jeunesse muy benn euh, séminaire boo xamante ni ñu ngi ciy waxtaan ak moom mm-hmm. ànd ci ak Ousin production muy loo xamante ni lépp lu ko waral mooy jàppale tey jeunesse bi sensibiliser leen séminaire la boo xamante ni ñu ngi koy waajal arène nationale mm-hmm. xam naa du yàgg dara dinaa la jox date bi te buñ koy eggee incha allah bi di ngeen ko yëg ak leneen loo xamante ni ñu ngi koy préparé muy journée de la paix ak ki nga xamante ni mooy Doro Gueye plateforme xippil xool li nga xamante ni moom la su fi Macky def muy un responsable politique nekk nit ku baax aussi tamit ñu gis ko taxawaay bi mu am ci jeunesse bi moom aussi ñu ngi préparé ak moom benn journée de la paix boo xamante ni lépp luy écurie te nekk Sénégal dinañ fa jël ñaari lutteurs boole leen benn tournoi la boo xamante ni lutte simple lay doon arène nationale pour jàppale aussi tamit ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi gën leen a sensibiliser waat ci nga xamante ni tey mooy violence parce que Pape Maguette gis nga violence bi mënuñu xaar nit ñi ci stade bi rek di leen di leen sensibiliser il faut ñu fekk leen à la base ñun pare nañu pour wàcc sur le terrain bépp écurie bu fi nekk ñu dem sur le terrain waxtaan ñi nga xamante ni ñooy say président fans club ba nga xamante ni tey yaakaar naa lépp loo xamante ni ñaawteef la boo xamante ni day jóge ci secteur yooyu di ñëw ci làmb ji dinañ ko mën a canaliser avant que mu yegg si ci stade bi parce que gis nañ bi nga xamante ni ñu ngi euh, supporters yi ñu ngi damm chaise yi dañ doon téye licence mbëri di leen aj di dangu seen ay reliquats mais ba léegi nii gisuñu dane changement bu ci am kon jàpp naa ne ñooñu bu ñu demee fekk ji leen seen secteurs yi waxtaan ak ñoom muy ndaw ñi parce que ndaw ñi ñooy avenir réew mi il faut ñu sensibiliser leen gën leen xamalaat wax leen ni tey Sénégal yéen yéen koy jariñoo stades yi ñu fi def gisoo fi benn mag bu fay bëre gisoo fi benn mag bu fay football ñoom ndaw ñi ñoo fay nekk di compétir kon li ñu leen defal président bu leen ko defalee da leen ko defal c'est parce que président da fiy jógee ñoom dañ fiy des kon di wax daal ne amateurs yi moment bi ñu toll nii jóg nañu pour jàppale ñi nga xamante ni ñooy ministre de la jeunesse ministre de la ak ministre de l'intérieur ci sécurité bi nga xamante ni d'une manière générale lépp luy sport pare nañ pour jàppale la muy làmb muy football muy lépp parce que ndaw ñi ñooy mujjee réew mi il faut ñu jóg pour jàppale leen mm. ñu jàppale waat tey ji dëkk bi sport bi gañeti ñu ndaw ñi ñu gañeti benn benn laaj laa la bëgg a laaj balaa ñuy tëj boobu sax bokkul woon na ci suñu mm. euh, bi ñuy bi ñuy waxtaan si mm. question yi ñu war a wax muy promoteurs yi maa ngi dégg yaa ngi kaasal mbër yi promoteurs yi ñeneen ak ñeneen pour ñu gën leen a sécuriser seen combat yi yàqu mais lan lan moo tere promoteurs yi ñoom ñëpp ñu nekk benn mm-hmm. mais promoteur ni ñu xaajaloowee day wàññi seen doole. day wàññi seen doole parce que ñoom ñëpp mënuñoo déggoo. Mm-hmm. ñoom ñëpp mënuñu waxtaan ñoom ñëpp mënuñu défendre benn cause. Mm-hmm. parce que séparément la ñuy demee. Mm-hmm. ñii dañoo jaar nii. authentique ak nangam mag. vrai ak officiel ak yu kenn xamul. façon promoteur façon association bu nekk mi ngi fi. mais séparation boobu est-ce que doon na li gën ci ñoom est-ce que jotu tey ñoom ñëpp ñu booloo nekk benn. parce que nekkuñu benn nag. dëgg la voilà li nga wax wax nga lu am solo. dëgg la yàlla yaa ngi wax point bu am solo ci làmb. parce que làmb promoteur moo ci jiitu. ndax moom mooy bailleur bi moom mooy. bu amul làmb du am léegi ñooñu nag bu ñu bëggee défendre seen intérêt. boobu léegi ñu ngi wax ci li nga xamante ni tey mooy sponsor. mais sponsor yi tey jii ñu ngi ci dëkk bi mais sénégalais ñu ngi utiliser seen ay produits. Ah. mais lan moo tey ñëw jàppale lamb. te lamb dara ëpp ko visibilité. mais soo gisee tey jii nii boo gisee tey sponsor yi bëri retiré wu. Mm. c'est parce li nga wax la ànduñu seen biir. tey jii nii promoteurs yi loo ci mënti dégg ñëpp xam nañ ni Gaston Mbengue c'est le Donkin. de l'arène def ci lamb xam ne waaw ñàkk ànd boobu mën na indi yàqalante. yàqalante non yàqalante boobu la indi sax. parce que léegi boo xoolee tey jii maa ngi seetaan barki dem suñu benn frère Kanji production mu ngi koy wax. Mm-hmm. ñaari promoteur bu ñu bokkee journée. kenn ki day ñaan journée mu réussir keneen ki dem kii. mais lamb il fallait que ñu am esprit de lamb ñetti combat mën na amandoo ci benn jour. lépp fees parce que lamb ñi koy seetaan du ñu jeex. Mm-hmm. te ñi koy seetaan ñëpp ay sénégalais lañu. ba ci diaspora bi dañuy jënd seen ay code di ko seetaan ah kon lamb nekk na loo xamante ni suñu culture la lamb kenn mënul wax Sénégal te du wax lamb leen ñoom promoteurs yi li leen mën a may doole sponsors yi ñëwaat mooy ñu booloo doon benn ah xool ñi jiitu ku ci mel ni suñu père Gaston ñi jiital ko mm. ñoom ñëpp ñu di ko laaj ay conseil topp ci ginnaawam mm. yeneen promoteurs yi nekk ci ginnaaw lamb yëpp tey ji ni parce tey boo xoolee am na ay mm. jeune amateur Ibrahima yaa ngi dégg boo xoolee Momo production ba ci Mor Diouf bi nekk jàmbaar jàmbaar production ñooñu ñëpp tey ay élément jeune amateur lañ mais tey jii nii boo xoolee li tax ñu gën a dugg ci làmb mooy moment bi làmb dafa toll ci moment boo xamante ni gisatuñu ay combat amateur parce que tey jii nii yaakaar naa ne tey combat bu ñu demee ba di ko teg ci ay billets wala di ko jël di ko teg ci ay parrain di ko teg ci pay-per-view nga xam ne lamb mu ngi jëm ci suuf te loolu yëpp boo gisee li ko mooy c'est parce que amatuñu promoteurs amatuñu tey jii nii mën naa la wax ni amatuñu tey garantie léegi loolu nag li ko mën a defar mooy ñoom ñëpp ñu booloo bokk ndey bokk baay te xool suñu kanam parce que làmb li ma leen wax rek président da koy seetaan ministre yi fi nekk dañ koy seetaan suñu kilifa yi dañ koy seetaan réew mi dama ne la dama dem kër sëñ Abdou ma koy nuyu de muy suñu sëriñ di sama xarit di sama lépp borom makaarimal axla yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal sëñ Muntaxa aussi tamit vraiment visite bi mu def bërki dem Sénégal ah, réew mi yëpp suñu toll nii non pas Maguette sëñ Muntaxa moom dañ koy <laughs> sëriñ la boo xam ni vraiment ñëwam ci réew mi am na lu mu def ñu koy ñaanal Mbacke Balla Aïssa yàlla na fi yàgg lool te wér te liggéey bi mu sumb yàlla nañ ko ànd taxawaayam ci réew mi yàlla na ko fi yàlla yàggal di fi yàggal yàggal fi aussi tamit suñu kilifa muy sëñ Mbàkke yu fay gis nañ moom it taxawaay bi mu am ci réew mi vraiment boo xoolee lamb moment bi ñu toll ni euh, Pape Maguette loolu rek la manqué ñi ko nekk ñi ci nekk bu ñu booloo bokk ndey bokk baay amul lu ñu mënul am parce que tey ku ñu mel ni sëñ Abdou Karim keroog ba ñu fa demee lan la ñu wax nee na moom buy seetaan làmb ba gis ci ay ñaawteef day fay teleem dugg mu xamal nit ñi bu ngeen demee ndakaaru wax leen waa ndakaaru ne làmb ji ñun ñii dañuy nekk fii di ko seetaan mm. kon nañ ko gën a sàmm nañ ko gën a toppatoo mm. loolu kilifa gu toll noonu bu demee ba di ko wax nga xam ne làmb ñëpp a koy seetaan mm. kon làmb ñi ko nekk nañ defaraat seen toogaay te bokk ndey bokk baay bokk ndey bokk baay bi nag bu mu yem ci ay wax koo gis nga yéene ko jàmm ndax nit ñi yéene leen jàmm du tee nga am jàmm loolu sëñ bi sëñ suñu sëriñ bu mbaax boobu sëñ Babacar si moo ko daan wax yéene ñëpp jàmm même bu ñëpp amul jàmm it yow di nga am jàmm kon nit koo gis yéene ko jàmm mm-hmm. di sant yàlla bu baax nag vraiment ci interview bi di la sant yow aussi Pape Maguette ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. wax yi sell na mm-hmm. wax yi jub na nekk na waxu responsable te dëggu na waaw ñun waxtaan bi loolu lañ ci wut waxtaan boo xam ne waxtaanu responsable la jub te bu jubee rek ci suñu borom la. Mm-hmm. waaw te xale moom bu loxoom setee rek mën a bokk ak mag ay ndam. Mm-hmm. Euh, kon li ñuy mën a tàggatoo rek man moom loolu moom sama ci à cœur. Mm-hmm. promoteur yi nañ booloo ñu nekk. non dañu war a booloo bokk nday bokk baay amul benn njariñ boo wàññi seen nagar boo tax du ñu am sponsor du ñu am. dara dëgg la yàqalante ci suuf ak tegante dil ak ay mafia yooyu. amul njariñ amul njariñ te te benn exemple rek la ñuy jeexalee. benn exemple la ñuy jeexalee ci côté boobu. ñaata mbër ñoo fi wàcc liggéey. bari na ñaata manager ñoo fi wàcc liggéey. bari na ñaata entraîneur ñaata ñi créé woon ay mbër ak ay écurie ñoo fi wàcc bari na bari na ba fan yi rek ñaata mbër ñoo fi wàcc liggéey bari na si benn ñaari semaine si ñaari semaine dëgg la ah, barki dem rek ñëpp ñu leen nii ñaan bilaay walaay yàlla leen yàlla xaare àjjana ak bi nga xam dañ dafa ma bett ndeysaan dëgg la ñëpp la bett Moussa Dioum ndeysaan dëgg la dëgg la dëgg la ay kon barki la génn àdduna ay kon tilaa la hmm. nekkoon moom it champion bu mag vraiment bari na lamb bu ko doon lim bi ñu fi jógee vraiment il faut ñu booloo joxante loxo vraiment vraiment am na mu sol te xam ni bu neexee day jeex bu naxaree day jeex gis nañ fi suñu suñu papa alaaji Basiru Jaañ jaar na fi suñu papa Amet Diène man lamb ji ma njëkk a seetaan Amet Diène moo ko tëgg mm. fii stadium Iba Mar mm. tey ñoo ñëpp tey ji nii génn nañ àdduna kon ñii fi nekk aussi nañ xam ni loo gis day jeex ñu rafetal ko te xam ni dañuy dem ndax ñoo ñu ñu leen yóbbu bàyyiwuñ fi ñu gën a booloo bokk ndey bokk bàyyi ndax làmb moo ci gagné ndax làmb sport la boo xam ni Sénégal yëpp koy seetaan mm. vraiment di lancer un appel nag solennel au président de la République Macky Sall di ko xamal ni ko làmb ji ndaw ñi ci nekk ay njabootam lañu mm. bëgg nañu bu ñu toogatee ba yàgg yu mel ni drapeau chef de l'État muy ñëw di bokk ci ñi nga xamante ni tey jii nii ñoo koy présider. muy ñëw stade président loolu message bu ma koy lancer la parce que tey jii nii yaakaar naa fii may waxee ni muy Sénégal moom mu ngi koy suivre. président ñu ngi lay lancer appel di la wax ni sa njaboot ñoo ne ci làmb bëgg mu ñëw. dëgg la non lu ñuy ñaan la te lu ñu bëgg la ñun jeunesse waaw waaw bëgg nañ ko de parce que bi li nga xam ne mooy arène nationale pose première pierre bi moom moo ko teg keroog bi ñuy def ouverture bi moom moo ko ouverture ba pare ba boobu léegi ñun amateurs yi ñoo koy xaar ñoo ngi koy demandé nag li ñu koy ñaan nag lii ñun ñoo koy ñaan ñun en tant que ay doomam ñoo ngi koy ñaan solennellement ñoo ngi koy ñaan di sukk ci kanam di ko ñaan mu ñëw ci làmb ji di ñu accompagner ñun ay doomam parce que ñun làmb lañ am te moom làmb la am te day suivre làmb xam naa ne moom mooy seetaan non non non non non non non buy ñëw sécurité bu doy dina ko accompagner bu ñëw ak buy dellu vraiment ñoo ngi ko koy ñaan di ko wax vraiment kontaan nañ ci liggéey bi nga xamante ne moo ngi koy liggéey ci réew mi parce que vraiment taxawaayam ci réew mi ñun ndaw ñi rafetlu nañ ko gis nañ infrastructure yi muy def gis nañ vraiment innovation yi mu indi te loolu lañ soxla ci moom ndax ñun ñoo ko dénk réew mi pour mu jëmale ko kanam kon encore une fois koy jaajafal di rafetlu liggéeyam bu baax a baax a baax di rafetlu aussi tamit un responsable politique bu nekk Pikine muy Thierno Ndom Ba nekkal ko foofu ci jeunesse bi di ko liggéey liggéey bu am solo ñoo koy nuyu moom ak Ousin Ndom di nuyu sama sëriñ sëñ Ablaye Diop xaas aussi moom it maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama yaay bu baax a baax moom aussi leer na Euh, lépp rek lu ñu wax rek pour defar làmb la moo ñu tax a jóg doo fi gëjaat incha allah. Mm-hmm. yéen am beneen rendez-vous. ñu ngi lay jaajëfal jaajëfe waa diaspora yëpp. man léegi bàyyi naa waa Sénégal waa diaspora man ñoom laay ñoom dañu bëgg làmb. non dañuy seetaan làmb ñu ngi def ay live. ñoom ñëpp yàlla nañu am jàmm ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. jaajëf euh, kii. góor gi moo ci caméra góor waaw ndeysaan suñu frère góor si waaw góor waaw. <laughs> mooy bàyyi maa ngeen vraiment leen jaa ngeen jëf yàlla ñëpp am